Grandeur jamono dugg si wàllum sëriñ si. te da nekk di di di seet. waaw lay ndeysaan. Hmm. waaw ma ma gis ku naan benn sëriñ bu naan Mara mu nekk ci internet bi di ko lëbbe te xamul dara dara dara jàngut A jàngut B xam nga man daal vraiment moo tax nag léegi man ginnaaw man nag jàng naa alxuraan. Hmm. bind naa ay kaabel hmm. teg. jàng naa naxju jàng naa tasmatu sixaar jàng naa baqara ba naa si yëpp mm. sangoo ko kon am naa droit ñaan ñii nekk ci internet bi nag ñoom Mara Niassat ñoom Moustapha xaw ma nan lëfër lëfër waa jigéenu keseet ñooñu <laughs> amuñu xam-xam ah ñoom jànguñu A jànguñu B abajada sax mënuñu la ko tere normal. Mm. man na ginnaaw loolu mën na ko mën naa dugg ci ñaan ngi kon. d' accord ah, ànd sama seriñ mu ni man nag léegi nii la at sëriñ maam Cheikh Ndiaye Jeysun. léegi yow lan ngay lan ngay kurus wala wala ndox. non dama téere seet dafa am xam nga téere seet dafa am téere seet xam nga dafa am. waaw téere am na. Ah. kurus seet yii nii yëpp ay wax yi nii la rek. waaye téere seet si téere gi yow ngay focus voilà man téere seet bi laay li nga xam ne yàllaa ko wàcce te mhm. laay seet ku ma seetal la mhm. numéro bi lan la saxati sama numéro bi may seetee jox ma numéro ba yow si 800 138 138 sama numéro bu bees la 78 138 38 110 38 70. waaw 78 138 38 70. numéro boobu daal ko ma ma seetal la. uskub la délégué nag laa yor seetu ma ci ndox seetu ma ci pétaaw. Ah. seetu ma ci kurus seetu ma ci suuf. téere seet laa yor di seet. di waaw damay seet ab sëriñ la dugg naa ci wàllum asraar. asraar waaw te nëbboo si dara ma ci dara. ab sëriñ xam naa ne boo fi laa ab sëriñ laa nag ngi may seeni nii. délégué tàggatool. maa ngi leen di nuyu di leen di wax yàlla yàlla defal ñu jàmm. amiin ñu dem ci cant gi jógee ci dem ci élection yi ñu voté ci jàmm ku ne dem ñibbi sa kër. amiin le meilleur mhm. bu dee Sonko moo war a gañe mu gañe. Mhm. bu dee Macky moo war a gañe mu gañe. jéeg kiin bi moo war a gañe mu gañe. kiin bi chef de quartier du ko doon Maam Ngor Jazaaka mënoo maa dimbali.